moo war a nekk ci bopp téere bi bu ca nekkulee duma liir la ca des dama koy misaal jamono bu nekk ci seg yi yéen ñi ko am bu waa ji bindeef seg def ci monta bu bari amul njariñ waaj ji du xool monta bi signature ba rek lay xool bu baaxee ñu soog dem nag xooli monta xool ki mu moom ak ki ko fiy jël fi waaye signature bu ñu xoolee te néewu fa du ñu xool la ca des kon jaamu yàlla yépp téere bi ñu leen bind jullee ci jëkk bu xësee walaabal ñu xool ya ca des nag lu cay manqué ñuy defaraat lu cay manqué ñuy defaraat ba kere muy jeex haata huwa al amalu saalih looloo tax ñu tabax jumaa yi julli moo tax ñu def fi ay milliards dafa am benn élève bu doon jàng wàllu économie ñu ngi def benn conférence ca kër Serigne Souaïbou ci wàllu julli te mu yell foofa ku ko fa wax yell na ba ñu demee ci débat yi mu ne man xam naa ne julli rëy na xam naa ni fonkeef na julli ndax man dama gëm alal ba di ko jàng ma ñëw ci dëkk bi fekk fi néeg bu rëy boo xam ne ay milliards lañ ca def ma ni ku moom néeg ñu ni julli ma ne kii kat kon foor na ki ñu jël ay milliards defal ko ko bennum néeg mënatu la woyof ci dëkk bi kon biib dëkk julli rëy na fi muy dëkku Sëriñ Bamba moo na day booba daa jàngul ni ba ko sëñ Bamba sancee dafa wax ni yow yàlla wa asbitan wa asbitan fiihi jamaatan tuqiim asalawaati alxams daaban yaa akim nee na saxalal ma fi mbooloo moo xam ni dañuy taxawal julli yi juróom ba faw moo tax ña takkook jàkke yi dañuy gudd fan di am wërsëg yàlla xam na ko màggat yu màggat ba xubu des koo ci laaj mu ni mosuma manqué jumaay bi noonu la yella wa asbitan la tëriñ bi waxoon wa asbitan saxalal ma fi dëgëralal ma fi as mbooloo soo xam ne lu ñu néew néew nañu may taxaweel jàkka ji kon bobu moo indi tay ci jàkka ji moo taxawara yaro ba kenn du dox kenn du wax ndax serigne touba non bu nu nekké ci julli nanu fàttali ko waxe cheikhul omar fouti nam ko waxe sax day day rëy ndax daf ca tek ni man bi tuqa wal ilmi qad taassara nanu fàttali ko cheikh omar fouti lam waxo mu melni mu dañ ko ni kan moy cheikh omar fouti mu ni man taazara bi taqwa mooy ka nga xam ni ragal yàllaa doonoon mbubbam xam-xam moo doonoon turkeem ya kooka laay wax na ngeen fàttaliku ay waxam ñu ni ko sëriñ bi lu ko waxoon mu ni wa kun isaa daxalta fi salaati ka misli maytin kaana fil wafaati nee boo duggee ci julli ni yuluf ci jàkka ji melal nim néew am néew lu nekk la tal ba mu des taxawaaloo nuyoo ak waxtu loolu moom nuyoo néew talu ko mbolo mo koy julli ñepp nga taxaw taluñu dara jullee ko rek lañu tal gaaw yobbu ko rek lañuy tal momit lool la tal bañ nañ ko ba kéro jullee gi deesu fa nodd deesu fa liqam ñu ni waaw lu tax noddu leen liqam ñu ni kat bi nodd na ba paré liqam na ba paré moy kéro bañ koy tuddu kéro bañ koy tuddu kon waji xamna ni deena ndax duguna ci julli ji kon nit bu ñëwee àddina war naa jàpp ni dem na kon ñu fàttali ko ponk boobu bu baax loolu ndigal la ndigalul yàlla ngoo ndigalul yàlla moo indi lii ba tax ñu bëggoon a rey nit te xam ngeen ni rey nit toll borom bi subhaanahu wa moo bind nit waaye ku bañ ku rey nit la bañ na ko ba boo reyee nit te tey ko lay àtte bi mooy nañ la rey rey ndax yow dootoo rey kon bañ na rey nit amul benn àtte boo xam ni day àtte rey nit mu yomb yombul buñ doon dem li ñuy wooye gouvernement islamique te gaa yi ragal ko lool te wallahi moo gën di moo gën a yomb ci àddina mooy bi ëpp njariñ ci àddina mooy bi ëpp yërmande ci àddina ndax li ñu la ni ku ko def ñu rey la doo ko def mbaa boo ko defee diisu ko xam ku njaaloo ñu rey la ñu ni kañ mu ni bu fa ñeent dajee bu fa ñeent dajee ñoo xam ne ñoo gisandoo kenn kobatul sa moroom loolu kañ lay am ku rey ñu rey la mu ni mooy koo xam ne bi mu nee tegg paaka bi daaree ni mu sedd guy waaye bu fi demee hôpital waxaat fa lekkaat fa bala ño ray kiko ray ay giiram dañuy wat ni moko ray kon ray yombul buñu ragal ray ray yombul l'islam fam ko yombul até l'islam rek moy até sama wayu sa soxna Touba Ngom moom itam maa ngi ñaan mu delu seeg jamm ci daraaje yonenti bi aj gi nako sayyidina Muhammad nangu ci barke rasulullah mu nga gis ne li lepp rek dafa am lu ñu wara fatali bisu tay bi suñu borom dana laq sa dom na la rendil doomi jàmbur loolu nag mooy doomu aadama la yàlla teral war a wala xadd karam naa jooju yàlla nañ ci dugg ci darajey rasulullahi kon yaakaar naa ni ñun li nu war a def mooy bis bu mel nii bu amee nga xamante ne euh, ni nga amee say yàpp yaram ni mu mel noonu la yàpp yaramu xar mi ngay rey noonu la mel waaye ñun tabaski gi yëpp li ñuy def rek mooy sante ko yàlla sa waaye julli ci rasulullahi waaye nag jaajëfate jaajëfale ko nun waa Sénégal ki tax nu tal ko kooku rek a tax nu tal ko mooy Seexul Xadim ndax bul fàtte bul fàtte ah tubaab bii rek la bañoon bu jullit yi dajaloo bu kenn ànd na ñëpp doon ay nañ ñu dispersé waaye nag sëriñ bi ne ko loolu moom man maay man man maay dagg jéngi yi xat kabla xat baa sa fadla fa wala wana fu jaay kon li nu war a def mooy sant yàlla dama ko doon téyel sëriñ Moustapha Kane waaye xam ngeen ni c'est lui qui est le présentateur c'est lui qui est le Euh, modérateur alaaji Moustapha Kane maa ngi lay balo ak di la dalal ba pare nag bàyyi laak programme bi bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Moustapha Kane jërëjëf sëñ Mamor ni nga ko waxee rek euh, noonu la demee ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam sant Serigne Touba di ziare bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér waaye noonu la ñuy ziare mboolem njabootu Serigne Touba gi di ziare suñu imam Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Khadr ñi di koy séentu mi ngi ci yoon wi di ñëw waaye nag di ziyaare seen taalibe bu mag bii nga xam ni moo nekk fii ci ndakaaru ak li ko wër muy alhaaji mbàkki yu fay nekk fii ci masalikul naan nga xam ne at mu jot sëñ Mamor nii lay def euh, waajal lépp ci ndigalul Cheikh Mouhamadul taxa waaye